di ko ànde ak ñun saa su nekk di ci bég lool di bég ci soppe Al Misbah yépp ne ci biir réew mi soppe Al Misbah yi nekk biitim réew di ñaan borom bi mu defal ñu kooru jàmm di ko ñaan mu nangul ñu di ko ñaan mu defal ñu njëggal di ko ñaan mu yokk ñoo defal sutura moom mi nga xam ne sutura daa bokk ci ay turam waaye àddunaam sépp mu doxale ko ci sutura ndax lool daa tax jàmm mën a am yàlla ñu gën a yaatalal suturaam soosu ku ne xam na ne buñ waxee sutura ci la wér gi yaram bokk ndax nit ki bu talut jàmm bu talut boppam amul sutura ab sagam day sàggeeku hmm, te ko sab sag sàggeeku nag nga tàmbalee ñàkk sutura yàlla nañu yàlla musal ci sag bu sàggeeku ndax àdduna li fi ëpp ci lu ñuy nawe nit ab sag la hmm. li fi ëpp ci lu ñuy nawe nit ab sag la mooy euh, borom bi daf koy suturaal li sutura di tekki mooy légét bi ci yaram wi mi ngi ci wala taq-taq bi nga xam ne moo tax ci nit ki mi ngi ak moom waaye nag sutura mooy doon mbub mi mooy doon mbalaan mi nga xam ne moo ko yiir tegu ci kawam ba nga xam ne sikk yooyu du feeñ mën naa wax ne mooy doon yére bi mën naa am fi mu ne ci sa digg ginnaaw gi am nga léget bu ci nekk wala mu nekk ci sa dënn bi wala mu nekk sax ci sa bopp bi waaye mbaxana mi nga sol wala yére bi nga sol walla muuraay gi nga muuroo moo tax ba sikk soosu feeñut loolu mooy sutura yàlla nañu ko yàlla defal moo tax kenn ku nekk daa war a doon ab yére ci moroomam ndax ku bëgg borom bi suturaal la da ngay suturaal nit ñi noonu la ko kim yónni woon ci ñun waxe bu boobaa bu nit amee sikk nga xam ko yaay doon mbalaan mi nga xamante ne yaay muuru ci kawam wala yére bi nga xamante ne yaay tegu ci kawam weeru koor nag weeru jéggal la te jéggal mooy weeru suturaal ndax ku borom bi suturaal kum jéggal dalaa suturaal ndax bu fekkee jéggalu la day xawi eh, sey sikk ba ñëpp janoo ak moom waaye bu la jéggalee nag mooy dalaa suturaal moo tax mu bàyyi la nga mel ne ku bokk ci ñu baax ñi te fekk moo la boole ci ñu baax ñi waaye say jëf booleetu la ci ndax imaam Ahmad Dame Ndiaye yal ko yàlla yokku wér ci téereem boobu muy waxtaane ca xikam ya boroom téere ba day wax ne sukkandiku ci say jëf sukkandiku ci say jëf day xañe ak pay day xañe ak pay ndax ki nga xamante ne dafa jàpp ne moom julleem yee tax mu baax wala kooram gee tax mu baax wala saraxam yi moo tax mu baax moo tax mu gën nit ñi moo tax mu am nangam nangam ba jàpp ne loolu ab bor la bu ko yàlla ameel pay gi maanaam sama koor gi ni ma ci sonne bu ma yàlla fayut moom ma xam ne nangam nangam nga xam ne dafa jàpp ne moom koor gi am mbir la mum defal borom bi pare tàllal ay loxoom ay yoxoom di xaar borom bi tegal ko ci ak pay bis bu demoon ba taxaw ne ko léegi dama bëgg nga fay ma li ma def bu ne ko naa ci génnee li ma ci am bu ko ci génnee mu jeex ndax bu dee julli gi la fi mu taxawoon di julli ku ko tegal suuf soosu ba man cee taxaw di julli mu ne ko yow mu ne ko fay ma sama eh, sama njëg ci taxaw gi nga taxawoon ci saa suuf si di julli mu ne ah waaw kon de bay bon nga fayeeku ko rek mu am lum ci comp ne ko ah bi may jullikat damaa taxaw euh, di jàng ay di jàng alxuraanul karim mu ne ko kan moo la kàttanal ba nga taxaw mu ne ko man mu ne ko waaw delloo ma kàttan googu ma la ma ndax dogon ko nag man kat doo mën a taxaw ndax am na ñoo bokkal nekk ci penc mi te mënuñoo taxaw ñu nga tëdd laaj maa la kàttanal ba nga taxaw maanaam noonu ma ko jàppee noonu bu ko nit ki jàppee ba mu jeex digganteem ak boroomam day xam ne moom du dara ci lim doon def du dara ci lim doon def rawatina nag bi nga xamante ne bu fekkonte ne saa borom da ko naan fay nga ma ba noppi lii nga defee mën na koo defee ba noppi te bi mu koy def yàlla taxul woon allahu akbar nga xam ne bi mu koy def eh, borom bi taxul woon bu boobaa fay ga gën a gën a néewati bu boobaa fay ga gën a dellooti ginnaaw moo tax ku yàlla dugal aljanna dala suturaal rek ku yàlla defal taw tawféex dala suturaal rek lum la may itam dala koo may ci mbaaxam rek waaye du bor bum la ameel loolu mat naa xam moo tax bu boobaa nit ki du dañ ci di ko sant du dañ ci di ko sant moo tax sax moom da koo wax xéewal yi ma leen defal bu ngeen ko doon lim nee na du ngeen fi jóg mukk waaw du ngeen fi jóg mukk da ngeen lim ba naagi wala ngeen lim ba faf guddee wala bët set te lu tax xéewal yi jeex moo tax léeg-léeg jamono metti lool ba ñëpp àndandoo di saalit waaye caalit gi buñ ko jëmee ci borom bi nañ ko jëmee ci suñu bopp hmm, caalit gi nañ ko jëmee ci suñu bopp waaye buñ ko jëmee ci borom bi eh, gàcce ngaalaamaa moom bu dee sax baat boobu am na bu ko gën a xóot moo yell ci jëmmam ja caalit gi bu kenn jëmee ci jëmmi borom bi subhaanahu wa taala waaw moom boo boo boo demee ba mën a yëg ne jamono metti rek nee na man sant ma ndax maa tax nga mën koo yëg hmm, maa nga mën ko yëg mënoon naa mënoon ngaa bokk ci ñi nga xam ne ci yow la ñuy xoole xamaayu jamono metti na ndax boo ko talut doo jàmbat boo ko talut doo jàmbat moo tax mu ne la bul jàmbat jëme ci man hmm, bul jàmbat jëme ci man bul jàmbat jëme ci jamono ji li ëpp ci li ngay jàmbat delloosi ko ci sa bopp waaw li ëpp ci li ngay jàmbat delloosi ko ci sa bopp ndax bari na yu am ci kaw suuf nee na jeexitali seeni jëf rek la jeexitali seeni jëf la bu ngeen meloon ni ngeen war a mel li ngeen war a am rek ngeen di am ñàkk mel ni ngeen war a mel moo tax li leen dal di leen di dal allahu akbar moo tax kuy tiit wala ngay jaaxle ku nekk léeg war ngaa jaaxle waat war ngaa jaaxle waat ndax boo delloo ci démb dafa am ay xeet yoo xam ne ñoom bi ñu gàttañloo ci seen digganteeg seen borom won ko ne ko teguñu la fenn léeg jël alal teg ko ci seen kanam walaw askan te mooy ab juddu wala ñu jël doxalinu jamono teg ko ci seen kanam ba leen borom bi meree ba borom bi meree ci seen jëf yooya ñenn ñi daa indi ngelaw ngelaw la rey leen ñenn ñi daa indi eh, am ab taw ndox mu baree bari ñu lab ca ndox ma ñii daa diqi suuf si ba ca kaw mu dëpp ko ñu jëm ca suufa suuf alko yooyu yëpp da ko daan jëfe waaye nag biñ demee ba ñun ñu ñëw nga xamante ne du def ak ñun noonu léegi nag ñun war nañoo sant ci xéewal googu ñu am waaye war nañu tiit ndax yi muy def te ñu war a mën a def luy tax loolu dañ te duñ def luy tax loolu dañ ñu taxawaat janoo ak moom di jàmbat loolu dëgg-dëgg ñàkk xelu la te nag booleeguñ ko ci yëf yi booleeguñ ko ci yëf yi booleeguñ ko ci yëf yi de booleeguñ ko ci ndax weer wi ci boppam di weer wi nga xam ne weeru koor la daa nekkoon occasion sax ci ñu gën a mën a boolewaat ko ci yëf yi waaye bi mu agsee it ne ba léegi dañ koo defee boole ci yëf yi moo tax nañu feeg ñi ngi naan jamono ji jamono ji jamono ji yàlla nangam yàlla nangam yàlla nangam mën naa am lu baree baree bari du noppi maanaam dana yeex a teggee ko ci ñun waaw ndax bu leen ŋàññi jamono la waxoon ndax man maay jamono waaw man ëpp na maa ŋàññi ndax li may def xam naa ko ndax man ku tedd laa ku sañ laa waaye ku xereñ laa ci li may def te waxoon na yonent bi eh, yal na ko yàlla yokku ay xéewal ne ko duma leen mbugal mukk li fi yaa ngi seen biir waaw la ma daan def moom maanaam sagal naa la sagale naa la bàyyi ko loolu la wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ma daan def ña fi nekkoon yow li ma la sagale mooy loola bàyyi naa ko di indi ay ngelaw di tukkal àdduna di indi am ndox di xar suuf si ñi ciy dugg loolu moom sagale naa la bàyyi naa ko li fi yaa ngi seen biir san mu mel ne da ko naan man kat duma fi sax ndax damay dem te dem na ba pare nekk fi mu ne ko duma ko def mukk li fi ñi ngi may jéggulu li fi ñi ngi may jéggulu duma ko def waaye waaye lu ñu xaar nag kon ki jéggulu borom bi subhanahu wa taala tuub te daa bokk nag ci lii tax ak tuub wér mooy nit ki buy tuub day bàyyi lam nekk waaw lam nekk te jaaduwut da koy bàyyi loolu mooy li jiitu ci ak tuub maanaam nit ki du nekk ci loo xam ne jaaduwut ba noppi naan man tuub naa ah man kay maa ngi tuub bu baax a baax a baax waaye yow jamono ji nga naan yaa ngi tuub maanaam buñ la xoolee ci sa jëmmu ba ci sa lépp dañuy gis ne sa lépp a juunu waaw sa lépp a juunu dara dëppoowu ci ak ni kuy bàyyi xel boroomam subxanahu wa taala war a mel ci jëf yaag doxalin yaag na penc mu bindoog na àdduna sa bindoog nañu commercé nañuy politiqué nañuy waxtaane nañuy sëye nañuy liggéeyee nañuy lebak euh, leble euh, maanaam dara lépp dañoo ànd wëlbati ko mu waroon a jëm penku ñu jëmale bopp ba sowu ba noppi ne ko ñun kay ñoo ngi tuub amuñu ko dul yow ay waaye ndaw dafa jaa duñu waxtaanaat de ndax buñ bëggee nag mbir ya teggeeku léeg-léeg dañuy waxtaanaat ci suñu biir nag ndax am na ñu toog ci seeni ruq nekk ci lañ war a nekk di tocc toccal ak a tuub ak a jaamu borom bi subxanahu wa taala waaye newoon na moom bu mbugal mi di wàcc day matale waaw day matale léeg-léeg du ko seppi du ko seppi ndax euh, ab sañ-saña matol noonu hmm, yal na ñu boole jéggal yal na ñu boole defal sutura soosu nga xam ne rek moom laa ubbee yal na ñu boole defal tawféex yal na ñu teggal jàngoro ji nga xam ne. lëmbaaje na réew mi lëmbaaje àdduna tongal ñu ñogg waaw tongal ñu ñogg tongal ñu ba ndeysaan mënatuñoo gisanteeti ba mën a waxtaan tongal ñu ba mënatuñoo liggéey ndeysaan waaw tongal ñu ba mënatuñoo tukki tongal ñu tongal ñu tongal ñu waaw yal na ko fi borom bi teggee waaw yal na ko fi borom bi teggee waaw teggee ko ba mu mel ne musu fee jaar te bañ fee bàyyi benn jeexital boo xam ne jeexitalu metit lay doon yàlla mën na ko yàlla nañu ko boole defal ñoo ngi leen di siyaare waat baax a baax te di leen ndokkeel suñu bindu baaxu démb biñ koy yëkkati ñoo ngi doon waxtaane lu jëm ci julli ba doon waxtaane yi nga xamante ne bu ko nit ki defee ci ak julleem ak julleem day yàqu wala yi nga xam ne day yàq julli yi nga xam ne day yàq julli waxoon naa nag ne la yàq julli moom julli gu yàqu yombut waaye yomb na bo ma yombut mooy ki xas ba xam ni ñuy defare ak julli lu ko gaar ci biir julli gi am na luñ ko tegal ci wet gi loo xamante ne bu ko jëlee jëfe ko julli ga day baax mu mën a wéy maanaam dog julli gi kettet dooraat moom li koy waral ci biiru julli yombut waaye nag yomb na ci bu fekkee xamoo koy defare hmm, ndax mbirum nit la borom bi bi mu sàkkee doomu aadama def ko muy ab fàttekat kooku mooy ab juumkat kon waaw ndax bi mu fàttee lay juum juum mooy jamut waaye daa juum lam war a def daa def lu wuuteeg loola fàtte gaa ko yóbbe ak ñàkk a ga waaye moom ci yërmandeem moo tax du ko ne boo jàddee rek yat bi dal du ko wax ne ko boo juumee rek mbir ya moom mënatut a baax da ko naan gannaaw yow ab juumkat nga dama lay may jàppandilu boo juumee ma jàppandi lan la yoo xam ne boo ko jëfee mu mën a baaxaat loolu nag ci biir julli dañ ko ciy jànge moo tax nit ki daa war di defaraat ay njuumteem defaraatal sa njuumte yi yaa ngi am sens man koo defar ba léegi looy xaar nag pour war koo defar wala da ngay toog rek bi nga yëgee ne lii ma nekk moom baaxut bàyyi ko ca sa bi nga yëgee ne li ngay def baax na waaye war naa mën a gën a baax ndax dogon ko nag nangam da caa am ndax loolu day am a ah, diw de moom mën naa joxe alalam waaye dogon ko nag waaw koy diw de moom euh, mën naa jàng alxuraan mën naa waxtaan ci diine waaye dogon ko nag diw aka nangoo liggéey waaye dogon ko nag waaw koy dogon ko nag yooyu mooy budul ko nag nangam waaw budul ko nag budul ko nag waaw budul ko nag mën a wax wax ju ñaaw penc mi moo fi gën bàyyil wax ju ñaaw nag ndax nga bokk ci ñi gën ci penc mi mhm. budul woon ak euh, maanaam bu lay da koy joxe ci mbooloo bëgg rek ñëpp di ko waxtaane penc mi fi gën waaw koy bàyyi lool nag léeg-léeg ci sutura waaw léeg ngay def ci sutura nag ne pat mhm. borom bi moom gis na ko di yàlla xam na ne buñ ko wax buñ ku ko waxut moom moo defut la ko war waaye yow li la war def nga ko bu yàlla taxee dana la fay bu yàlla taxee dana la fay ki koy wax itam li muy wax bul wax mukk ne dafa eh, dafa doyadi wala dafa nangam wala dafa nangam déedéet borom bee digal ne ko buñ la defalee lu baax na nga ko na ko wax tey nanga sant ci xéewal yi ma la defal te sant xéewal yi mu la defal daa bokk ci di ko waxtaane aka sant ñam ko jaarale ba mu agsi ci yow ndax bari na loo jot dogon ko nag diw do agsi ci yow ndax borom bi kiiraay lay ci ay kiiraay lay jëfandikoo ak nit ñi mhm. borom bi ci ay kiiraay lay jëfandikoo ak nit ñi ki nga xam ne dafa feebar borom bee koy faj borom bee koy wéral borom bee koy wéral laa bëgg a borom bi moo koy wéral ba mu wér pelet waaye du wàcc moom en tant que borom bi wala du ñëw moom en tant que borom bi xaw ma day wàcc xaw ma day dox ñëw waaye du ñëw moom en tant que borom bi tiim ko di ko pikiir wala mu tiim ko di ko sampal butéel boobu nga xam ne am ndox da ciy génn du ñëw di ko euh, diwal ay ay diw déedéet waaye nag da koy jaarale nag ci nit doon kiiraay ci ginnaawam waaw mu ñëw tëdd ku mel ne soxna Aana ja jël ay yëf teg ko ci dënnam bi déglu ko ci nopp yi muy tëf-tëfi mu xam ne kii nanga ma ko dal wala mu gis bët ya xonq wala mu gis muy jayaxu mu jël garab xam ne bii la bind ko mu dem ca barab ba jënd ko ñu ne ko boo koy naan da ngay naan ñett wala da ngay naan ñaar wala bii ngay naan bu boo xëyee bii ngay naan bu bëccëgee bii ngay naan bu ngoonee na nga bàyyi nangam nangam na nga bàyyi nangam mu ñëw ci kër gi yaram wi tàng jër euh, di tëf-tëfi mu xooyal ca yeñ ko joxoon naan juróomi minit yaram wi sedd mu tëdd tàmbulee nelaw yeewu daal sangu sol yéreem la mënul mu man ko loxo bi nanguwul woon a tàlli tàlli tànk yi sawar mu mën a jëlu saagam daal di tàmbalee mën a dox liggéey ñi ko yàlla jaarale ci ñoom daa am aw tur wu leen wooyee ci pénc mi ñu am col gu ñuy sol ñu tabaxal leen ay barab yu ñu koy defee muy jaar ci ñoom nag muy jaar ci ñoom ci ku sabab lu dem ca ñoom tam nam mu ci yow nga wér mu jaarale lay wéral ci ñoom nga wér waaye fi mu ne li lay wan ne jaaruwaay rek la nit dafay dem ta ba noppi faatu nit yor tawat ju mel noonu tëdd këram te du faatu waaye moom mooy jaarale euh, faj gi euh, ci aji faj ji ndax kiiraay la ci moom euh, mu koy wéralal ñi nga xam ne dañoo feebar moo tax bul ko bàyyi rek ne yàlla laa doyloo daal di toog déedéet nee na li ma lay indil ci ay kiiraay laa koy jaarale waaw fajkat bi kenn la ci kenn la ci moo tax itam bi nga waree am dara itam mu jaarale léeg-léeg ci nit mu nekk kiiraay ngir nga am nangam waaye borom bee ko jox ndax ki la koy jox sax moom léeg-léeg xamul lu tax mu jox la ko waaye yàllaa ko xiir ci yow rek ndeysaan wala sax am na euh, da koo génnee jàppoon ne war naa koo jox juróomi nit waaye yàllaa la boole ci juróom ñooña wala bi nga koy diis sa soxla mën naa am bi mu xëyee xamul woon ne sax dana ko faj wala loolu bokkuloon ci programme am bu doon lu mu doon programme du demee noonu waaye yàllaa yàllaa ko dogal nga ñëw mu yëkkati ko jox la kon day mel ne suñ boroom ay nekkaat kiiraay ci yim lay jox nga xam ne lépp loo am moom la nee na lépp loo am man la ndax bu fekkee liggéey moo tax nga am xaalis jàpp ne yow danga ngaa mën a tukki ni nga tëralee sa liggéey bi kat dafa baax ni nga ko nosee dafa baax da ngaa ñu lay taxaw da ngaa wut ñu ciy jàpp da ñu ciy nangam ca wet ga am na ku la ko dàq fuuf léeg sa sax da koy jàng ca lekkool yu mag ya barab bi nga am e, ab ab jaayuwaay di jaay di soqeeku di am njëg gu baree bari bay desal léeg nga nga mën a fay ki nga dendal juróomi yoon yéen a bokk lu ngeen di jaay yéen a dend yéen a yem lu ngeen di jaayee te mën naa am moom la nit ñi gën a xam boo moytul moo la gën a neex deret ndax yow mën naa am sax doo nuyo mën naa am faalewoo kenn mën naa am sax ñi fi nekk ñëpp jubóowoo ak ñoom waaye borom bi nee na man li may joxe dama koy jaarale ci kiiraay yi nga jot ci yow laa nam mu nga jot ci yow laa nam mu nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy am yow yaay am loolu daa waxoon ne xéewalu borom bi la boo xamante ne moo koy jox ko neex moo koy jox ku ko neex kon euh, yu baree bari bu ci nit ki jot day jaar ci kiiraay yi ngir mu jot ci na bàyyi xel loolu tey defaraat ay sikkam tey sant nag waaw tey defaraat ay sikkam tey sant tey sant sant moom ñëpp la war ku ko tal rek sant war na la ku ko talut sax say mbokk dañoo war a sant yàlla ci ñàkk gin nga ko ñàkkatal ndax saa borom la soob nga ñàkk koo tal te loolu dafa gën ci yow ndax léeg-léeg bëgg dara te fekk gënut ci yow léeg bëgg dara ta fekk léeg nga bañ dara ta fekk moo gën ci yow noonu la ko waxee ci téere ba mbokk yi li ñu waroon a toftal ci waxtaan woowu gannaaw bi nga xamante ne kuy julli dafa am yoo xam ne bu ko julli bu ko defee julliyam day yàqu te yi yàqu julli yombut waxtu wa far na jeex mooy dañoo waxoon ne danañ waxtaan ci li nga xam ne mooy sujjootum njuumte ci julli sujjootum njuumte maanaam ki nga xam ne dafa juum ci julli ji war a sujjóot sujjóot bu koy defar moo waxoon la démb ne la sunna la ci ñu bari ci ñiy jàngale xam-xam bi nga xamante ne mooy nosee ni ñuy jaamu yàlla suñu boroom yoonal ko moom sujjóot boobu ngir ñu man cee defar suñuy julli ak di ko xoqutale saytaane maanaam di ko xëllamtoo ndax muy ñëw jax-jaxal la ba nga juum ci li nga doon def mu kontaan daa kontaan ne kii moom yàqal naa ko jaamoom nga dem ba pare doo ñaari sujjóot toroxale ko ko ne ko taxul mu yàqu moom mer nag moo tax jàng ko ba xam ko ndax nga ciy mën a toroxal saytaane saytaane moo bëgg diggante yi diggante nit ak nit saytaane moo bëgg suñu diggante yàqu diggante nit ak boroomam saytaane moo bëgg diggante ba yàqu waaw moom mooy liggéeye loolu moo bande bande bande bandi ba nga xam ne lu yàq diggante nit ak moroomam di yàq diggante nit ak boroomam ci loolu rek lay nekk moo tax boo taamee boo tàmbulee jaamu yàlla di julli mu lay jax-jaxal bala ngaa jug la naan la julli gi jëru ko toogal ah man ngaa bàyyi ba ci kanam waxtu wi des na man ngaa bàyyi ba ci kanam waxtu wi des na nga ñot ñoti ba ko julli dëgg mu ànd yow ci biir julli ga di la yóbbu marché di la yóbbu ci bor yiñ la ameel di la yóbbu ci facture bi nga war a bind boo pare appel téléphone bi nga xam ne danga ko fàtte woon ci yooyu lay ànd ak yow ci loolu lay ànd ak yow nga góorgóorlu ba mucc ci mun la nag yaa gën gaa yi nag parce que yow moom vraiment ab jullikat nga dangaa góorgóorlu ba mën a julli ah bàkkul nag waxal gaa yi ne leen di leen juli yow yaa ngi nii waxtu wi dangaa julli kon bokkoo ñoom nga tàmbulee bàkku jëf ja yàqu moo tax du la bàyyi du la bàyyi mukk du bàyyi mukk nit moo tax bu leen naagu ci pexem seytaane bu leen naagu ci pexem seytaane Sëriñ Tuubaa loola waxoon ca bindam ba tudd Masaalikal Jinaan bu leen naagu ci pexem seytaane li feek yéen a ngi dese genn noyyi waaw fi yaram wi ruugeen ci biir yaram wi bu nit naagu ci pexem seytaane ndax ba bu ki tëddee ci lalu sukuraat sax wala wuy ji boroomam sax dana ko dikkal di ko jéem a nax-naxal di ko jéem a jax-jaxal waaw kon bu nit ki naagu ci moom nay muslu boroomam te di ko bàyyi xel tey ñaan mu musal ko ci sujjóot bi ngay def ci julli gi boo juumee daa bokk ci li nga xam ne nag da koy toroxal ci yat yi koy dóor la bokk moom ñaari sujjóot lay doon yoo xam ne aji julli ji da koy sujjóot ginnaaw bi defee ay njuumte ci julli gi léeg-léeg mu nekk sujjóot boo xam ne laataa muy sëlmal la koy sujjóot ñu di ko wax xabla salaam léeg-léeg mu noon sujjóot boo xam ne gannaaw bi mu ba noppi la koy sujjóot mu tudd ba'da salaam waaye sujjóot la boo xam ne ki juum ci biir julli gi ci ay yëf da koy sujjóot ngir defare ko bu juumee bàyyi li ñuy wax sunna mu bàyyi ci ñaar wala lu ko ëpp da koy def ngir defare ko bu bàyyee farata bàyyi ràkka ba farata ja nekkoon indi beneen ràkka wuutale ko ko bu noppee da koy def ngir julli gi mën a baax ki juum nag waaye ki tey moom def li muy def ab sujjoot ñëwul ngir régler nit ñi seeni tayeef parce que ki tey moom daa tey waaw tam te ki tey ay yëf bokkut ak ki juum ay yëf mhm. ki juum moom dañ koy indil loo xamante ne da koy jubbantikoo ndax saytaane ko jax-jaxal waaye ki tey moom ne maa lànk kaare kooku moom daa am beneen bët boo xamante ne moom lañ koy xool yàlla ñu yàlla may ñu dund ba suba te weesu ko incha allahu taala ñu wéyalaat tomb bi nga xam ne ci lañ nekk ñu jotaay bi nga xam ne mooy almisbaax ndokkeelaat bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy bàyyi xel almisbaax yépp ci biir réew di ñu bàyyi xel ci bitim réew ndokkeelaat bu baax a baax sëriñ daara yi borom xam yi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun jotaay bi saa su nekk nga xamante ne amatul luñ ciy jànge ndax luñ tàmbali mën nañ koo ta te àggalin wa sax mën naa gën a rafet wii waaye ñun ñëpp mënuñoo toog yor micro bi xam naa sax bu fekkoonte ne yéen ñi am xam-xam ñëpp a ñëw ñun ñi amut xam ñu xajal leen mënu leen a waxandoo yéen ñëpp waaye nag léeg lek kenn mooy jéem yóbbaale ñi ci des ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen ñaanal borom bi defal leen tawféex te lal leen te yokku leen a suturaal ni ngeen di suturaale njaboot gi gën leen a def ay ndawe xam-xam ay ndaw ñoo xamante ne ñooy gindi àdduna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 wa barakaatu. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أذكار الصباح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم